juin nag moo moo tax mu teg sama bopp de ah. 19 juin novembre. date naan 19 juin rek. Bécaye. laa ilaaha illallah Lamine. waaw ndax suur la léegi affaire yi neex de waaye nag. waaw. non ba pare rek ñu bàyyi ñu xaar gën a <laughs> ko société Bécaye Alliance Birame ragal ñu ngi lay siyaare <laughs> jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di am ak contentement bu mag mm-hmm. teew fii comme ni ko sunu père Max waxee rek c'est pas la première fois lamb di woote waaye salle bi lamb musu fee woote mm-hmm. tey jii tëj nañu stade de l'amitié tëj nañu stade Demba Diop tëj nañu stade stadium Iba Mar Diop kon benn stade bii rek la ñu dese nañ leen ko fonk parce que stade bii moom buñ ko tëjee mooy làmb tëj na kon ñu ngi lancé appel boobu rek képp kuy supporter rek nga bàyyi xel loolu bàyyi xel ne stade bi rek la ñu dese muy arène national te moom mooy sunu vision en or. mbokk yi ñu ngi nuyu bu baax Père Max di nuyu Fallou Ndiaye le promoteur numéro un. Fallou Ndiaye yàgg nañoo woo ci bis bu mag. waaw c'est pas la première fois mu ñuy woo fii ci arène national woo nañu ci Sadium Iba Mar Diop ci bis yoo xamante ni dootuñu ko fàtte. kon tey bu ñu indilee ki nga xamante ni moom mooy Giro Seras ak Ndiaye Tine indil nañu combat bu mag. spécial bi mu teg ci alliance biram ak Bécaye kon Fallou Ndiaye yàgg nañoo woo ci bis bu mag bis boobu yaa ngi yàlla nañ ci am réussite totale Mor bu parcelle ñu ngi lay nuyu bu baax moor Diouf moor Baye Fall di nuy assistance bi yëpp di leen xamal ni bés boobu nañ leen ko waajal bésu le 19 novembre fii ci biir arène nationale ak Fallou Ndiaye le promoteur numéro un ku ñëw di nga bég mm-hmm. di nga gis culture ku ñëw di nga gis bëre ndax ñaari xale yi ñu boole ñaari ndaanaan lanu xoolal Giro Seras bi muy mujjee fi nga xamante ni moom euh, stadium Iba Mar Diop lu rëy la fa def ki nga xamante ni moom mooy Ndiaye Tine bi muy mujjee stadium Iba Mar Diop lu rëy la fa def mbokk yi kon bés boobu yal nañ ko fekkee yal nañ ko tal te yàlla defal nu ci ndam amiin léegi moo daan ngi jëm ci ñaari xale yoo xamante ne espoir lañu le 17 décembre le 17 waaw le 17 le 17 décembre Modou Baye Fall moo woote moom tamit yàgg nañoo woo ci bés bu mag sokk bu ndaw la ñu indil Talfa ak Talfa ñaari ndaanaan sokk bu ndaw laaj naa ko lu tax nga jël Talfa mi ne ma damaa bëgg egg fi samay morom egg ji ndax Talfa ndaanaan la alliance Birame ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu Bekaay Bekaay doomu parcelle bi. ayca. mbokk ñu ngi nuyu presse bi jëlal doo Baye Fall moo moo doonta waaw Baye Fall moo doonta kon bés baa ngi noonu bésu le novembre incha alliance Birame ñu bàyyi la nga nuyu ak ñi lay seetaan waaw gannaaw baatu onze billah bismillah ina yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba eh, yàlla rek ay dëgg te mooy borom dëgg moo fi jox Bamba dëgg ba tax mu daal di signé Bamba ne wasalaamun alal mani tabalu daa jërëjëf Serigne Touba waaw ah, gannaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur xamal di wax suma yaay yàlla na ko suñu borom xaare àjjana fi mu tëdd xamal ak boo jullit bu mu fa fekk suma papa yàgg fi loolu fa fekkee sumay njëriñ di siyaare suma sëriñ suma wasila Serigne Bassirou Fall alxuraan di wax yàlla nañu suñ borom taas si leeram di siyaare njabootam bi mu fi bàyyi xalifa bi muy Serigne Gunda Fall mu Cheikh Bassirou Fall alxuraan ak booleem njabootu maam Sira Fall bi yëpp di siyaare njabootu Serigne Touba bi kilifa diine yi fi nekk yëpp suñ maam xam di siyaare njabootu Mbaye Laay bi maam Limaamu Laay bi njabootu sëñ Babacar di siyaare bépp kilifa diine di siyaare waa kër Serigne Cheikh Serif Binaako Serif maa ngi koy siyaare bu baax Cheikh Samsidi borom Casamance borom Binaako Serif maa ngi koy siyaare bu baax a baax ku daj si man ay coono la wax dëgg fa yàlla. yaa ngi nuyoo rek moom mu lay sànni ay béjjén. bàyyi la nga nuyoo billah bismillah inna wali yàlla jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jaaraama borom daaru ginnaaw ma sant yàlla julli seen bi sant sama ñaari waajur di duy waa parcelle un ba vingt-six moo jógee xam waa Cambérène Liberté 4 xam nga Grand Médine xam nga waa dëkk waa Casamance dina mbaa di mbanni koolu mbaa tantalu mbaa jaay la di maay ko maasoro xam nga le 19 novembre incha allahu rabi ani alliance biram la asa maa koy duwaal biri njama fo bungiling waaw fo bagaraaji fo fo Kolda so maa koy duwaal pon sa boy incha allahu rabi a konta boy noon haala fof yeeyi di nuyu waa parcelle ñëpp daal di nuy àdduna. waxal di nuyu àdduna xam di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak xam nga di nuyu xam nga di nuyu sama adversaire alliance Birame di nga champion la xam nga. yow mu lay sànni ay béjjén rek. waaw yooyu muy wax noonu yëpp garaawul ay béjjén ak ñun ay taalibe Serigne Touba ñun ay ndong yooyu moom amul problème pour ñun ko xam nga mais avant tout tamit damay siyaare bi nga xam ne fa laa dëkk muy yëmbal. waaw képp kuy doomu yëmbal maa ngi lay siyaare bu baax waa jàmm waa waa waa Samsam waa Tilikaro xamul ma la waa Farba bi nga xam ne fa laa yeewoo ak sama mbokk sama dëkk Bawal rawatina ba mbay bi nga xam ne fa laa yeewoo waaw muy Bambey taax waa Batal waa Ngoy Aliou si la xam nga di siyaare waa Baari Ndondol siyaare waa Tukaar waa Joyin xam nga di siyaare ñëpp. moo tax no lamb la rek xam nga lamb moom lamb rek la mun a baaxoo jël békaay pour man amul fee parce que mbër la bu prouvé wax dëgg fa yàlla mënu ma fi taxaw tamit. am na fee kay ndax booy bi dafa doy waar. wallaahi azim fii mu teg lamb ji nii. fu mu teg lamb ji. fu mu ko teg. non moom xam na man xam naa fi mu teg lamb ji yaakaar ne mooy lamb ji mi ngi nax boppam. alliance waaw waaw waaw ban espoir la def ci gàllankaan. kan ah, kii moo daan Nokia. waaw yow bàyyi ma waaye man ñëw ma fi sax pour ay ndaw. waaw yow mu daan def daan amati mu daan booy lin mu daan nekk yow xam nga xam nga bu baax. yow xam nga ne man ñi ma daan kenn rek kenn rek kenn ki ma fi daan rek kenn ki ma daan xam nga ne jegewul sax ñu daan. kii ñu mu daan bàyyi nañ booy caa bàyyiwul de. ka mooy booy caa. kan daa xam kuy booy caa ka mooy booy caa kii na lim ñu mu daan kii kii moo ma jël si làmb fuuf. wuy ma moo ma jël si làmb fuuf. bu muy dugg si combat bu moom mujjee seeraan barki démb rek def na sept ans. <laughs> muy ban moom moo booy caa. combat boobu noonu maak Iba Mar Diop Malick Thiandoum moo doon raboté. barki alxuraan bu fekkee amul yàlla bu mu la daan bu fekkee amul yàlla bu mu la daan kii xam laa koy wax. lan laa koy wax. a bëre. xam nga kii bu taxawee naan ay Magwuz Jàmbaar nee na boobu xale la Magwuz Jàmbaar defagul trois ans. boo boobu xale nga kon yow am nga njëkk a bëre sa premier bu taxawee man benn année ma si daan alliance bi. kii bu fekkee bëriwul 2015 yàlla bu mu ko daan. tapel na tapel dugal yi jëm nga tapel combat am. lu ma la wax bëriwul man xam la lay wax di courage bu amaatee combat yàlla na yàlla may ndam. wax di courage bu amaatee combat na ko yàlla jox ndam. mais bii nag bi lay bëreel arnaqueur bi kii dama koy arnaque. booy yooyu yëpp garaawul na ma arnaque man bu ma arnaqué ma bàyyi koog sama yaram xam nga lu ma la wax man bañu ma ku ma arnaqué yow booy yow da ngaa kontaan yow xam nga ma. waaw Alliance Birame nga tur nga am xam nga. waaw noonu li ma lax sànq laa waxaat. Eh, doo ne da nga koy ñoddi te loolu amul. waaw du ma dërëm garaawul taalibe Serigne Touba laa mënu doon dërëm. mais daa am benn boo xam ne da ñoddi li ngeen ñoddi li ngeen di ñoddi noonu fii eh, bu ñu tayee si mbedd barke nii ngay jaar noonu ngay jaar. da nga def benn boo xam ne li ma mën na bu dee li ma gën a mel sama àdduna si la bokk wóor na alquran karim mooy dama toog sama sang Mbacke Balla dem ko siyaare ji dañ kii taskat kër la kii taskat kër la kii man man man kii ma lu ma war a def si géew la ma ak moom la. même wax ma wax ba pare quoi daf ma metti moom kese muy wax waaw garaaw waaw mais may wax nii daf ma metti mbala gu ma de barke maam Thierno Mbacke dama toog ak sama sang Mbacke Ball ñu toog man ak moom téléphone chaque jour dañ ma daan woo téléphone di ma saaga garaawul mun naa ko gérer ma toog ak Ball ñu may saaga muy reetaan si suuf ma koy xamal comme saaga ñu ñu may saaga xaw ma leen mais moom mi ngi nii maa ngi nii barke alxuraanu karim bu ma saagaa muy lamb wala bu dul lamb dama koy lekk barke maam Thierno ñu may saaga xaaruma ko yow sa saaga laay xaar boobu ba léegi maa wax déglu naa wax a saaga am ak yow muy làmb wala bu dama lay lekk wóor na borom daal yow mu neex la mu naqar dama lay duma loolu xam ne dafa nànk rek mu naqar ko mu neex ko da ngeen di woote téléphone di def loo xam ne bu ñu jàkkaarloo doo ko def kon jaru nga koy def comme bu ñu jàkkaarloo man ak yow doo ma saaga kon jaru ngeen woote téléphone di saaga saaga ma yaa ngi bala kii taskat kër la kii tas billahi wallahi wa kii taskat kër kii kii kii bu bu taxawee naan bu ma la du ma la saaga man damaa respecté samay waajur samay waajur ma saaga kenn bëgguma sax kuy saaga ama boo dëggalee sa boor ma lay neexal ak gem neexal sud teg bësël bësël bi ar nag maa la mun fuuf yow champion bu toll ni alliance biram nga naan ko dëggal sa bopp eh maa la kii booy bi ne na nga dëggal kii bàyyi bal kii bàyyi ko bu gis ba jox man damay yor man nga maa gis ma boote yow tàppal nga eh, man ay ay benn booy booy yow xamoo yow doo dërëm Alioune doo tuus da ngay xadu waaye doo dërëm nga may waaye. da ngay wooteel wax bi yow del wax de. da ngay xadu nga may nii doo dërëm. da ngay maa la gën a doon xale fop. jaajëf wooteel waaw jàppee nga xam lépp dëgg la. wooteel di jégalu ñëpp xam nga di jégalu ñëpp xam nga luñ fi wax nag xam nga bu jubee si yàlla bu dëngee nag suñu la ñu suñu matadi la quoi. waaw dañoo bëgg maanaam jaay journée bi rek mooy loolu alliance adversaire la comme adversaire yëpp xam nga borom baax la mooy loolu di ñaan yàlla nag yàlla ma yàlla si kawam xam di woo sama waa dëkk waa Casamance xam waa Kalla waa waa Binaaxu Serif lu muy woo lu muy diwoo xeeñoo dëkkul Casamance moom maa dëkk Casamance xam nga fa dara xam di woo ñëpp di woo waa Parcelles Cambérène Liberté 4 xam di woo di waa Cambérène Liberté Liberté andi bu Liberté 4 maa ngi teg mobilisation si loxom ama nga waa Liberté 4 yëpp xam nga waa waa 100 pour 100 PA bi mbooloo mooy doole parcelle bi Cambérène 1 ba 2 Grand Médine 100 pour 100 Grand Médine bi du ñu may jàppale Malick Ndour ki su mel ne suñu ministre de la jeunesse Malick Ndour Pape Malick Ndour maa ngi koy woo bu baax a baax a baax si combat du woo ñëpp ah, ah ñooñu deux deux cent bolok ngay ngay jëndal ñu koy gërëm ñëpp waaw moo damay woo ñi ma nuyu xam nga sama waa koñ tamit rawatina waa Farba xam nga lu ma la waa Farba maa ngi leen di woo bu baax a baax a baax maa ngi woo waa ba bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga rawatina président ba muy Boubacar Dramé suñu grand Assane Mbaye xam nga lu ma la suñu papa Thierno Diop ñu ngi koy woo bu baax ak suñu yaay may mun a jonn xam nga lu ma la di wax autorité yëmbali nañ ñëw jàppale ñu soxla nañ ko lool lool fee lamb fa bàyyi dafa metti da ngay bëri say combat say boo ñëw lay defal daal lépp xam nga lu ma la wax moom may ñu may ñu tuuti mais que lundi la lundi le 14 ñu ngi si woo ñëpp tamit xam waa Farba gi ma la waa naataange maa ngi leen di woo bu baax xam nga lu ma la wax nii non ñëw leen Lamine lundi boo leen ñëwee dootoo leen ko rëccu ñëw leen boo yoolee ko ñuy xamal tamit tey li fi am ni tey Père Sow Fall barke alxuraanu karim nii ñu def nii jël nii si biir nii peesewro ngi nii moo ma bul woo kenn booy kaar lañ jël barke alxuraan dañ ko maye peesewro moo ne leen bu leen ñëw barke maam Thierno Fadi peesewro ngi moo ma ma koo fi booy ay kaar lañ jëloon may Modou may ma rek ma wax tuuti xam nga ma la gaan Ilimane Dieye Ilimane Dieye autorité la yëmbal nekk xale